lii du lu sérieux lii du réew réew mu normal du doxee nii dama leen koy déglu loo pour une dernière fois ndax tey dinaa leen liveal quatre fois tey Ismaïla Madior Fall ak euh, Abdou Karim Fofana dinañ ma dégg ñeenti yoon suprême. et pourtant le porte la euh, moom euh, mi ngi évoqué euh, justement la condamnation de l'affaire Mame Mbaye Niang bi. est-ce que xam ngeen position Abdou Karim Fofana moom moo yor kaddu ku jéggi moom moo yor moom mooy porte-parole bu gouvernement Sénégal maanaam moom moo yor kaddu gouvernement Sénégal Abdou Karim Fofana ñu dem déglu encore. et Cour suprême. et pourtant le porte-parole du gouvernement là monsieur le ministre Dagou Mbalo moom mi ngi évoqué justement la condamnation de l'affaire Mame Mbaye bi nga xam ne ci lañ sukkandiku pour DGE bañ joxe. non non non loolu waxu ko. ah non non loolu loolu loolu Mohamed non non. on va on va on va revérifier. non non non bu ñu moo tax ma affaire yi. suñu waxee ndànk rek. parce que moom bu waxee double communication le nuyul. noo waxul loolu nga xam ne noo waxul ko noo wala su fekkee ne moo ko wax. Mhm. may proposé. waaye mooy ñu arrêté émission bi suspend. ñu xool ko ñu xool ko ay cokkoon pour être candidat il faut d'abord être sur le fichier électoral. Hmm. Ousmane Sonko a perdu ses droits civiques en tout du point de vue de sa capacité à être électeur. Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambeigna et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié ses notifié euh, Pour être candidat, il faut d'abord être sur le fichier électoral. Mm. Ousmane Sonko a perdu ses droits civiques, en tout cas du point de vue de sa capacité à être électeur. Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambeigna et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié notifié. xam nga dégg ngeen porte-parole bu gouvernement bi nee na Ousmane Sonko perte na ay droit am nee na ci mbirum Mame Mbaye Niang bi la ko perte mu ne sous-préfet bi notifié na ko léegi nañu dem ci légalité notification sous-préfet boobu te sous-préfet bi déjà comme niñ ko waxee ñoom nee nañu notifié nañ ban sous-préfet moo war a notifié Ousmane Sonko déjà bu fekkee sax ci lu légal la waaye comme ñoom déjà dañu perte ay pédale kii day waxee nii jëmee na la kii waxee jëmee na maanaam ñoom seeni ay kàddu àndul maanaam ñoom mën nañoo rey ay nit dellu ginnaaw ne ah non attends dañoo juum ñu ko woon rey dañ ko waroon tëj un an voici le danger d'un gouvernement incompétent lii mooy suñu danger ñu dem ñu déglu Juan Branco li mu wax ci notification boobu. le pouvoir qui va dire ah oui mais vous ne le faites pas dans les temps c'est le premier point ensuite euh, c'est le sous-préfet de Dakar qui a cherché à notifier à monsieur Sonko le fait qu'il était radié des listes électorales alors même que monsieur Sonko est inscrit à Ziguinchor donc de toute façon la décision que l'on a tenté de. voilà déglu leen fii su préfet bu Dakar moo jéem a dem notifier Ousmane Sonko de sa radiation mais bu leen fàtte ne Ousmane Sonko est inscrit à Ziguinchor maanaam sous-préfet bu Ziguinchor moo mën a notifier Ousmane Sonko mais pas bu Dakar bu fekkee tey yow da nga inscrire Matam Podor mënulaa mënul ñëw notifier la waa Matam ñoo lay notifier donc déglu leen encore li Juan Branco wax ñu delluwaat ñu dellu si waat. Euh, le pouvoir qui va dire ah oui mais vous ne le faites pas dans les temps ça c'est le premier point ensuite euh, c'est le sous-préfet de Dakar qui a cherché à notifier à monsieur Sonko le fait qu'il était radié des listes électorales alors même que monsieur Sonko est inscrit à Ziguinchor donc de toute façon la décision que l'on a tenté de lui notifier est nulle ensuite il y a le fond de la décision c'est-à-dire qu'on prétexte le fait qu'il aurait été pour le faire radier alors qu'il est entre les mains, entre les mains du pouvoir. Il est aujourd'hui dans... Juan Branco ñëwaat na ci encore mu ne